dama laa keroog dama ñu ko mën gaay ngeen may tuuti may leen tuuti rek bi ñu sant yàlla julli ci yent bi ñu sant suñu ñaari waajur yox allahuma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta allahu la ilaha illa allahu anta ahadul samadu allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ñoo ngi mosul ci cat bu baax a baax di nuyu assistance bi yëpp di baaloo àq suñu woy juur yi nga xam ne ñu ngi leen di tànkal heure bi te dëkk ci gox bi di leen baalu àq bu baax a baax di wax ne yëfi ndaw la rek mhm. ñu ngi leen di jéggalu ñoom ñëpp mhm. ndaxte ñàkkul ne am na ku tëdd fi mu ne am na lu koy métti ñu ngi koy déranger mhm. ñu ngi koy jéggalu bu a baax di wax ni yëfu xale la di nuyu yëpp ak waa parcelle bi 1 ba 26 ñu ngi ñi nga xam ne yéen internautes ñëw fii nii di leen masaw coono parce que tamit lii métti na lool balaa ngeen ñibbi da ngeen guddee ci yoon beeg yeneen ak yeneen ngi nuyu ñëpp tey jéggaluñ ñëpp di baalu ñëpp àq daal nga am na combat capital waaw di ko waaj comme ni ñu doon waajee làmb yi rek ndax xam naa ne sama combat arène gëj na am ndax ñu bëri réeré nañ ma mbir sax dañuy wax ne booy fa mbëru mbapat la te ku def onze combat bi di sa douzième combat doo gan ci làmb def ci cinq grands combats comme ni nga wax sànq rek ñun li ñu doon bëri ak lii bokkul ndax def nañ champion francophonie champion des africains champion CEDEAO champion Sénégal mi chef de l'état jël nañ ko kon bu ñuy xëccoo roi des arènes la ñuy xëccoo masha Allah kon actuellement ngi sant yàlla bu baax waaw di nuyu waa quartier bi yëpp bon di nuyu Kalidou mi nga xamante ni su ma gën la ndax deret ko sonal ko hmm. keroog bi ma signé làmb ji ba tey amul jàmm di nuyu waajuram ak soxnaam ak waa kër gi yëpp. di nuyu suma yaay di yërëm suma yaay di nuyu sama yaay di ko yërëm. di ko yërëm di ko yërëm naan ko yaay booy dundal ba ca kanam hmm. ndax soxla naa sa assistance ci kaw suuf. ak mbooleem yaay yëpp. Hmm. ku ci nekk ak sa waajur yal na sa waajur gudd fan. ba li nga namm ci moom nga defal ko ko bi jaay sa jur uju mu nekk na combat boo xamante ni yaakaar naa ne dégg na Sambala li mu wax nee na côté moyen pare na parce que bu muy waaj monsieur le maire dafa yëkkati un million jox côté bii muy open press monsieur le maire ñëw ne ko bii yëpp dégg naa ko te loolu rek yaakaar naa ne sax ko dañ ci interpellé woon autorité yi dëkk ci gox parce que yaakaar naa ne loolu tamit foofu ñu jàll na ko mu nekk message boo xamante ni tey foo gars yi di loolu parce que bu dee dama cee kontaan bu baax parce que àll bu nekk li fay ñuul moo fay ñàkk. parce que moom mooy ñàkk fee nga xamante ne moom mooy lu mu tëdd sax waaye fi mu dëkk mbaaw kon loolu ñu ngi kontaan ci sax ki ka defal. ñu ngi kontaan si moom. nit boo dëkkee nit muy ndaw di wut dara. bokk leen jëm waaye bokk leen liggéey mu yëngu ci dara. li la yàlla may muy sa wërsëg da nga ciy jël dimbali ko te yàlla tax ndax boo ko defal defal ko keneen rek bu dëkkul fii waaw affaire bi noonu la fa demee man nag jooyuma ma leen parce que muy Kalidou mi ngi jàpp ci làmb ji lu mu ci mën ak Mansour Gueye ak ñoom xalifa Khalifa Gueye ñi nga xamante ni ñoom grand chef Samb gars yi nga xam ne parcelle bi seetaanuñ ma benn yoon vraiment nag aw ma ku ma assisté ci ginnaaw mais am naa ay bonne volonté yoo xam ne vraiment fu ma jógee war a ñu jàpp ci ku ci mel ne sama benn garant bu naan jàllo asalem non mm-hmm. kooku daf may wax daf may jox ay moyens ba yenn saa yi damay koy ruso xool mm-hmm. mi ngi asalem ah alaaji jàllo moom Babacar mm-hmm. aw ma seen fay barke Seydina Muhammad lamb ju leen leen ciy daj maanaam bugaar lamb métti métti waaye boo xamante ne nii autorités yi ne fii li laay war a suuli ñun ay ndaw lañ suñu génnee drapeau parcelle la ñuy boot bootuñu bu ay Pikine bootuñu bu ay yëmbal bu feneen non non parcelle la ñuy xeexal suñ jëlee victoire bu ñëwee bu ñuy zibilé biir parcelle lañ koy def duñu daw ba géejawaay toog fa di ko fa zibilé affaire bi nag leen la ndaw da koy dimbali ci bi muy raam bu taxawee trop na soo bàyyee ba muy dawit trop tard na voilà loolu la dégg nga yëngal tamit nag na bëgg-bëggam yàlla defal jàmm bala onze ba mu ñëw stade en li ñu ci war a liggéey liggéey nañu maag sama staff muy zos di carré suñu course principal ak daaw bi nga xam ne tey day sonn ci ñun yor box bi ay ñoom kalso gaay ak ñoom giroo aara booy bawal Cheikh Tidiane ñaa ak ñoom ñang mbaalo booy nekk ci écrit bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ku ma limul damaa booy entraîné li ñu war a entraîné moom lu am am naa ko fii maanaam moom moom maanaam moom ah, boutique am man grossiste laa moom boutique la su ñëwee sama grossiste lu muy jaay lu mu lu bëgg ñu jaay ko ko lépp ngi fi fii lépp a ngi fi maanaam moom barki borom njaay laa la wallaahi ñu ngi toog di ko xaar fii armi yëpp a ngi fi maanaam arme yi arme yëpp a ngi fi en tout cas daal ci kattanu suñu borom lu ci laal du nooy ci moom te dina ko tuub ci kattanu suñu borom yow yow Boy Faye du gan ci làmb Boy Faye ñu bëri dañ naan ñemee yàq làmbam man bi may nekk fee ginnaaw raay di bëri dañoo naan wax dañuy jënd buum takk sa tànk ndax song gi ngay song du yoon del taxaw di xaar man musuma xaar mbër ñëpp dañ naan ñakk a teeye kay perte loo làmbam ak maye bi ngay maye dañuy gis Boy Faye day maye lu bari ci làmb loolu la loolu la ñàkk combat bi li ma la fay Faye moom ak nii bokkul booy Faye bi doon bëri ak Boy Faye bi bokkul man dama ñëw parcelle ñu encadré ma dañ ma encadré teg ma ci yeneen fànn te wax dëgg fa yàlla am na yenn jëmm yoo xamante ne su ma leen gisee lañ doxoon ci sama xel mi damay gën a farlu pour nga bañ a jaar foofu ba jàppee nu ma def booy ñaaw lu ko raw la koy def nu ma def booy ñaaw lu ko raw la koy def ay zambala waaw booy fay fu lay lamb ak adversaire am. barki borom njaaram ki wut ku la gunge ñeme woo fi nga jëm. man booy fay dama yàgg jël sama saak man kese. yow xam nga ci dara. di dugg ci àll bi di jël ay nag di ko yeb ci ay biis yii ma bàyyi ko dëkk ba. tapet du def loolu. man ndox mi amul ci ron guy gu ma tëddul fanaan fa. di daan suma doole daw ma bunt kër kenn. booy fay li muy dundee alalam la. day dem bëre ji jël làmb ji ñëw dimbali way juuram man suma yaay laa am. tey ak suba ak suba. billaahi wallaahi kon tey jii nii làmb ji kii aw ma xel ñaar ci moom dem naa maire bi nee na ma demal nga daan ko nga ñibbisi wala dégg ma mu nekk ah, sa combat a yóbbu li mu laaj ci combat bi booy waaw Bougar xam nañ fi mu war a yóbbu parce que bon mooy li ma la wax sànq rek booy fay dafa am ñeneen ñu nekk ci ginnaaw mu am beneen beneen affaire boo xam ne dafa dañ ko maanaam li ñu naan ku ñeme dañ laa déy am ñeneen ñu ne ci ginnaaw di ko jàppale su ma waa dëkk waa kër mbaa ngi jaawoo sama dëkk yaay dañoo toog xamal ma ne da nga war a doon champion waa Gàmbi sama waa kër bàyyi famille Moussa bi dañ ne ma da nga war a doon champion Abdou Kama toog ne ma fay mu ne ma mu ne ma heure bi jot na kon da bi jot na da nga ñibbi say mbokk na ñibbi say mbokk wallaay fay ñibbi na ci ay mbokk ma wax la li gën a garaaw li gën a garaaw lamb jii nii man sama biir ci musul woon sama deret su ma ay deret ñoo ma yóbbu làmb ja ku xamul foo jëm génn fa ma jóge woon fi jaam ñi ci dëkk bi di rootee man falaa dëkk ñoom li ñuy root dama cee tëdd di nelaw zambala li ngay rootee dama cee tëdd di nelaw moom am na benn wax bu mu wax mais duma ko ci topp parce que bu ñu lay te am na nu mu waxee waaye garaaw tolluwaay la ku ne maa ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm pour le onze mu ñëw ma jàpp ko daan ko ci kattanu suñu boroom ñibbi si parcelle gars yi zibile salaamaaleykum booy ñu ngi lay waaw fay bu baax di waaw nee na li mhm. mhm. moom ci moom moom ci ça dépend ci moom rek maanaam mooy li ma wax sànq rek moom li mu yor bitig la man grossiste laa lu mu bëgg mi ci grossiste bi. mais dafa dafa dafa am loo xam ne day nax boppam maanaam day day day day nax boppam ci lu bari te li muy foog nii di wax nii nangam ak nangam yàlla yaatu na wallaahi dimanche yàggatul suñ ci yeggee waxoon naa la sànq ne la côté bu mu ci laal dina ko tuub du ko defati ba ba muy dee waaw li ma ko yóbbante leen la moom mooy mbër gis naa ne jàppale ñëpp loolu lépp lu rafet la loolu lépp lu baax la waaye ginnaaw bi ñu la jàppalee ba pare nag man ak yow ñoo des ci géew bi te li ma la waxoon jëflante gi ma la waxoon du deñ bakkan lañ ko laaj bakkan. jàmbaar bakkan lañ ko laaj. jàmb Abdoulaye Zambala bakkan lañ ko laaj. kii waaw ah, jàmbaar. dinañu jëflante dinañu jëflante maa ngi yow kese ñooy des si biir géew bi. yi ngay wax yëpp nangu naa ko ok. waaw di woo nag waa parcelle gépp gépp 1 ba 26 bi. di woo ñëpp ñëpp fépp autorité bu fi nekk. ñu ngi lay woo soxna Aïda Saliou ñu ngi lay woo. waaw di woo gars yi parce que man ñi may woo ñëpp jax jàppoon nañ ci làmb ji parce que man sama làmb bañ ko signé la gars yi jugul ku nekk jël sa moyen di ma dimbal te yàlla tax maa ngi woo kaaru kër waa Mangu Njaaw di woo waa Daaru Kër Mamar Xoroja di woo Saalum gépp waaw woo waa Passy di woo waa Jaxaw Siin di woo waa Mbelgoor maa leen woo ñoom ñëpp di woo waa Gambi Serekunda maa ngi woo Mansour Bousso teg naa ko ci sa loxo naan la Gambi gépp gépp gépp famille Bousso bi maa leen woo ñu jàpp ci ji waa Kaolack Amar teg naa ko waa parcelle bi inte 4 bi yëpp waa ECHO waa doole maa ngi siyaar parcelle bépp di woo ñëpp naa leen ñëw leen ngeen jàpp ci làmb ji di woo Cheikh Baye Fall mi nga xamante kooku man aw ma fayam sama gen wàll la day dagg yitteem yu bëri nekk ci àll bi à cause booy fay kese mën mënu koo fay Cheikh Samb ñu ngi koy bégee bu baax a baax ndax jàpp na ci affaire yi quoi Ram Daan sa digganteeg Ram Daan waaw sa digganteeg Ram Daan ba mu fi jógee bu yàgg la yàlla def ngeen doon ànd guddeeg bëccëg subaa ngoon mu doon sonn si yow tey yàlla def na nekkatu fi jóge na fi booy fay yaa ngi fi ak njaboot ji yaa ngi fi ak équipe bi tey lan ngay wax ci sa diggante ak moom. non man bu may wax ci lool sama xol day tooy parce que ñoom ñëpp ku ci nekk dafa am fu ñu jaar fu garaaw. Moussa Balla bu may ñëw fii moo Garga 2 ñoo tax Garga 2 ak Moussa Balla ak sama mag ñoo nekkoon ñu indi ma ci école bi waaw Ramdan nekkoon kenn ci man maam moom ak Garga ñu ñëpp ci diini lañ doon nekk suba ba ngoon. am na benn xeer bu nekk géej ñun ñett dañ fa daan toog di waxtaan souvent maag Moussa Balla Gaye ñoo fay toog su may daw ci géej gi ba yem ci xeer bi damay sëgg lu yàgg parce que xeer boobu daf may fàttali ni àdduna jariñalu fi lu ñaaw bu kenn yéene kenn leen na ñëpp yéenante jàmm. senegal benn boobu la kenn mënu koo xar ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii nii mooy li ma wax rek dëkkandoo mooy mooy loo si ci te tey ma woote gis naa su may dëkkandoo yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa si ñoom bu baax a baax a baax a baax. maa woo maa ngi woo waa Cambérène 1 Cambérène 2 bi di woo ñoom ñëpp di woo waa Fadja bi woo gaa yëpp fépp supporter booy fay nekk. maa ngi lay woo di woo Oustaz Ndiago waa Ndiago Jilaxaar bu kenn des di woo waa Danduxul Oustaz Danduxul maa ngi woo ñoom ñëpp tund boobu noonu waa Sokone waa Fimela Lamine teg naa ko ci solo waa Famine Marloj Fayil fayaa maa ngi woo maa ngi woo nag duuróobu yaann maa ngi lay woo sama benn général boo xamante ne nii moom waaw mi ngi Casamance bi xam na boppam zee bi maa lay bëggee gars yi